salaamaaleykum président ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar. mbaa yaa ngi si jàmm. alhamdulilah rabbil alamin. lamb namm na la. maa gën a namm lamb. mais mosuma jóge ci lamb parce que amateur la. tey la la andi ci arène nationale. Gaston Mbengue. moo la présidé loo journée bi. combat spécial bi mu sargale ba ko. donc di occasion pour man pour euh, gërëm Gaston Mbengue bési tey bi bési symbole la su jëlee làmb ji toll nii nga def na koy delloo njukkal ci li ma def ci làmb ji eh, dañuy def sant ko bu baax moom ak équipe am di ñaan saison ren bi yëpp yàlla def ko muy saison bu rëy mais lépp nekk su ñu nee taxaw fii tey nekk ci jàmm. c'est que réew bi dafa am jàmm kon nag ñuy wax suñ xale yi nañ delloo si xel yi gaa am nañ droit xëccoo mais kenn amul droit taal réew mi yàlla nañu yàlla yokk jàmm.